salaamaaleykum ami téléspectateur ami internet de Leral TV et de Leral point net amati na nu mbégte ak contentement bu rëy wàcc sur le terrain ngir dëgtal leen li nga xamante ni moo di dundinu askan wi tey nag Leral dafa wàcc fi nga xamante ni moo di Grand Dakar ñëw fekk association boo xamante ni ay ndaw tout tànk ñoom ñoo ko taxaw bopp ninche maanaam góor dëgg activités yi nga xamante ni nag dinañ ko ci mënee dañuy dugg dem ci biir gisanteeg ñi nga xamante ni ñoo di jeunes yi ëmb association bi ñu waxtaan si ak ñun kañ lañ ko door ak yan activité la ñu mënee génneegum lan lañ ciy xaar léegi léegi lay doon dama ciy ànd ak sama technicien Babacar Ndiaye. mu mel ni da jiite benn association ñu koy wax Ninche mën nga ma mën nga revenir ci turu association bi ak but bi. en fait euh, Team Ninche benn association la boo xamante ni dafay évoluer dans le social tout ce qui est social dañuy réfectionner ay école ñu ngi doon tamit évoluer ci kii corona bi pour xeex affaire bi et tout Ninche nag euh, c'est un nom en en en njaago kii signifie góor dëgg ci sa que ça signifie niñ ci seen ay activités est-ce que mën nga ma résumer wala nga tënkal ma rek yenn yoo xamante ne jot ngeen ko def jamono ji. waaw euh, récemment demoon nañu Podor avant ñuy dem Podor réfectionné nañ réfectionné nañ Yoff mooy seem yoof réfectionné nañ ko après def nañ di Blaise Diagne mooy école Manguier ancien Manguier Jaraaf Ibra Paye boobu tamit defar nañ ko. semaine passée tamit on était à Saint-Louis école Soukeyna Konaté pour nga dugg si nécessité wul nga joxe xaalis parce que ñun déjà ñun euh, du ñun ñooy financer affaire bi du kenn tamit mooy jël xaalisam financer affaire bi bu ñu amee benn école bu ñu war a réfectionner dañuy lancer benn levée de fonds ñu demander benn citoyen bu nekk cinquante francs wala cent francs après ñu rassembler xaalis boobu yëpp ñu dem defar ci benn école du kenn nit moo koy financer ñun ñëpp société bi ñoo koy financer ñoo koy defar. comme yéen a ngi nekk ci benn gox mairie bi remarqué na seen liggéey wala benn homme politique remarqué na seen liggéey wala benn waykat ku am tur koo xamante ne mu ngi leen ciy jàppale. waaw waaw waaw parce que biñ nekkee Yoff yàlla ministre de l' élevage bi mu gisee activité yi sur Twitter. ñëwoon na foofu noonu participer am na ñeneen tamit ñoo xamante ni borom daraja lañ biñ gisee affaire bi ci réseaux sociaux yi ñëw nañ participer am na ñoo xam ne buñ ñëwee dañuy indi seen contribution xaalis am na ñoo xam ne buñ ñëwee dañuy summi parce que boo ñëwee c'est pas parce que ministre nga boo ñëwee dañ lay traité comme ministre non boo ñëwee benn ouvrier ngay doon da ngay summi sa mbaxana politique teg na le nekk ouvrier nekk ci liggéey bi voilà y a pas discrimination. ndax ci ouverture yi ngeen commencé di liggéey ak corona bi liggéey yu ngeen sumboo woon avant. waaw bi corona bi tàmbalee am na ñuy commencé woon di joxe ay kii ay gel di maye ay masque pour dimbali pour sensibiliser nit ñi daal mais vu ko école dafa tijji ñu war a xale yi war a jàngi léegi ñu ne junior mu ne kaa leen dem jéem a xool nu ñuy defaree école yi après si lañ demee commencé di defar école yi nànk-nànk ñuy defar affaire yi di gën a dem quoi mais bu ñuy defar ñu gis ne am na école yu bëri yoo xamante parewul pour accueillir xale yi si ouverture léegi nag après ñu commencé di defar ay toit di defar ay toilettes ah di jàppale ñu pour jàppale élèves yi quoi. kon su ma la déggee ci coronavirus bi ngeen commencé liggéey wala. waaw corona bi lañ commencé liggéey ba léegi nii après ñu ñu tem ñu koy yeggale nii ba si ouverture ba léegi ñu koy yeggale. amee lenn lu nga xamante ni yéen a nga ñu jàppale leen ko lan lay doon. ah ku am sa doole rek wala ku am sa moyen boo ñu mun jàppale ñun xeebuñu dara ndimbal la dimbal la rek na ñuy dimbali ñuy dimbali waare parce que ñu ñuy jox bu nekkee xaalis defuñu ko si ñun si école yi ñuy yi ñuy defar fa lañ koy yóbbuwaat ku nekk loo am rek cent franc fiki dërëm un million loo am rek lu waay am rek dimbali ñu ñu dimbaliwaat élèves yi loolu moo tax. mu ngoog ami téléspectateur ñoo ko déggandoo association Ninche comme niñ ko waxee woon rek di ay xale yu ndaw jug nag ngir eh, dimbali askan wi ba tax na nag ñun ñu wàccoon dékk leen sunu micro am nan yaakaar ne yéen ñi nga xamante ni yéen ñu doon seetaan eh, gis ngeen ci seen bopp bu baax a baax ñu leen di nag jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy mënee ci seen ay kàddu nag ñu ngi sàkku rek képp koo xamante ni mën nga leen jàppale nga daal di ñëw jàppale leen ndaxte ñoom it dañuy tourné jàppale ñi nga xamante ni ñoo di askan wi lii di jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen gox ak tamit ci beneen sujet jërë ngeen jëf ci teewlu bi